jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97 point 5 Abdou Khadre Seck moo nekk ci euh, kàddu gi comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu quinze h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu euh, technique bi mbokk yi ñu daal di dellu siwaat ci seen émission. pencum réew mi tey ji nag samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août atum 2020 ñu dellu am mbégte daal di dalal euh, monsieur Abdou Mboup nekk ingénieur en développement territorial ba pare mu nekk conseil technique euh, Macky Sall nekk coordonnateur national du mouvement Kaar Natangué moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni jëm na ci actualité ak mouvement bi di Kaar Natangué euh, monsieur Abdou réew mi FM a ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax di sant yàlla si ci yonent yàlla Muhammad di nuyu waa mi FM yëpp kilifa gi jiite. di nuyu waa réew mi ñuy déglu réew mi FM mais di nuyu son excellence le président Macky Sall di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp tey nag euh, euh, Babak euh, Abdou Khadre da may invité mu dajeek sama benn waajur wu góor fii koo xamante ne mooy suñ waajur fii ci Ndakaaru muy Youssou Soumaré mu dëddu àdduna tey génn àdduna tey ci guddi gi ñu war ko denc ci 14 heures mais jaar ci seen Eh, réew mi FM bi di ko ñaanal yàlla xare ko aljana góor gu baax taalibe cheikh jullit akkan boo xamante ne mooy suñu kilifa ñun waa Koungheul yëpp fii ci Dakar mu nga dëkk Mermoz ñu ngi koy jaalee bu baax a baax di ko ñaanal yàlla Uh, jërëjëf uh, monsieur Abdou Mboup yow yaa jiite mouvement bi di Kaar Natangué yow yaay coordonnateur national bi nga bokk ci mouvance présidentielle Euh, dinañu waxtaan ci actualité lu bare bari mais mouvement bi nga xamante ni moom nga moom nga nekk coordonnateur bi euh, kañ nga créer euh, mouvement bi ak kañ nga commencé ànd ak président Macky Sall. mouvement Kar Natangué ba ma commencé ànd ak président Macky Sall depuis 2012 la wax dëgg yàlla 2011 2012 laa ànd laa commencé ànd ak moom jaare ko ci ministre d'État Mbaye Ndiaye muy sama ibbil ma ci bunt bi avant maa ngi woon parti bu ñuy wax LD nekkoon fa. xale ba nekk fa directeur de campagne benn aussi gi Sénégal Sicap Liberté mooy nuy Yoro Dey moom tamit le ministre Yoro Dey euh, maa ngi créé mouvement Kaar Natangué le 7 novembre 2014 juste après les élections locales euh, bu 2014 bañ ko taxawalee ay kàngam yu bëri ñëw ànd ci mouvement transport bi mooy ci jaar di nuyu Modou Diouf mi nga xamante ne moo leen jiite nekk parking taxi boo maraîcher le retramos regroupement de transport modernes Sénégal nga xamante gare routière station taxi yi bëree bëri bokk nañ ci ànd ceeg femme de développement yi yi nga xamante ne ñu ngi ci mbootaay yi tout ça and ceeg man ànd ceeg les étudiants n'est-ce pas à travers des programmes très intéressants de bourse d'études yoo xamante ne ñu ngi ko def ci biir réew mi ànd ci également ak diaspora bi mooy ci nuyu ñoom Moussa Ndiaye ca Angleterre mu nekk mouvement boo xamante ne nekk na mouvement national ànd ceeg mareyeurs yi également mooy nuyu Thierno Mbengue n'est-ce pas euh, les mareyeurs du Sénégal l'association des marins du Sénégal ànd ceeg baykat yi waa Kër Mousso ci waalo bi euh, ñëpp ma leen di nuyu bu baax a baax a baax alors. Euh, lu taxoon nga créé mouvement bi. waaw mouvement Kaar Naataange vous savez xam nga ba may xale ba tey maa ngi maa ngi ci def politique mais aussi dama di économiste économiste boo xamante ne développement rek laa xam je suis ingénieur en développement territorial euh, expert en marketing la mise en valeur naka laay defee ba nga xamante ne politique ak développement ànd ma gis aussi. Euh, loolu mu méngoog lool ak politique président Macky Sall bu baax a baax a baax ci ni mu taxawee réew mi ci ay institutions yu bëri comme lu mat fond fonds de garantie d'investissement prioritaire teg ko fi depuis le début ci magistère am te sénégalais yi comprendre ñu woon koon naka la ñuy defee bañ ñu ci am ay garantie dem ay fin am financement wala am ay garantie dem mën a am sa outil de travail comme sa oto tax de l'émergence am sa garantie dem mën a am sa coopérative d'habitat n'est-ce pas maa ngi profité di nuyu waa marché Kermel bu baax a baax a baax Mahmoud Ndiaye desk nga nekk fa jiite nekk mbootaay bu yaatu yaatu ñu ànd ci coopérative d'habitat bu mag a mag boo xamante ne ñoom plus de près de 300 am nañ ko foofu ñu taxawal ko euh, def link entre politique ak développement di war a occuper terrain bi 365 sur 365 jours de l'année parce que dañ doon gis ne les hommes politiques euh, en tout cas ñu ci gën a bari bu élection passé rek doo leen gisaat ci terrain bi ñun nañu ne ci mouvement Kaan Naatangué en tant que expert en tant que cadre de l' pour la république naka la ñuy mën a occuper terrain bi 365 jours si 365 maanaam at bi yëpp te du nekk kaxaar du nekk politique mais day nekk ci loo xam ne soxlaay askan bi so askan bi mën a gis seen bopp ci nguuru président Macky Sall noonu lañu ko defee yàlla suturaal ñu ci lu baax a baax a baax. mais mais mais euh, mouvement Kaan euh, Naatangué euh, amu leen wala da am yenn poste de responsabilité yi bu ngeen demee ba xam jafe-jafe askan wi lan mooy nekk seen solution. waa xam nga euh, askan bi balaa ngay xam jafe-jafeem da ngay da nga koy jege dañuy def descente sur le terrain organiser leen parce que vous savez dafa am lu ñuy wax euh, secteur bon tuddeewu ma ko informel parce que loo xamante ne moo yor daanaka 70 pour cent de l' activité économique euh, bu ci ci bëri ñu ci bari en tout cas professionnalisé wu naka la ñuy defee bopp professionnaliser leen maanaam organiser leen ay dispositifs économiques yoo xamante ni ñoom danañ mën a euh, xeex seen xeexal seen bopp maanaam xeexal seen njëriñu bopp ñu organiser chauffeur si organiser le regroupement de transports modernes Sénégal mu am GIE bu ngan ñu def benn programme bu mag aussi bu programme un chauffeur un véhicule dem ci président Macky Sall mu jox ko projet bi euh, jox ko projet bi waxtaan ceeg moom na ko président ñii chauffeurs yi kat dañoo soxla financement wu seeni oto jigéen ñi dañoo soxla ay financement pour seen liggéey mu dimbale yooyu ci ay lettres de garantie di FONGIP avec euh, l' administrateur général Doudou Ka taxe de l' émergence ñëpp dégg nañ ko ci réew mi boobu lañ doon war a ibbi AIBD mu fekkoon licence taxe yu bëri ñu ñu ñu bloqué ko woon licence taxe yi amutoon Sénégal yàlla suturaal ñu ci suñu projet bi président mu ne taxi bu bees licence bu bees euh, bus yu bees train bu bees aéroport bu bees taxi yooyu dem aéroport tey ci suñu projet bi yàlla suturaal nañu euh, licence spécifique AIBD e génn yeneen taxi am ci président euh, joxe woon instruction ministère du transport ba nga xamante ne euh, tey dimbale nañ ñu bëree bëri bëri dimbale ay jigéen ñu jot ay financement d'accord dimbale également ay jeunes ñu am ay bourses d'études d'accord euh, monsieur Abdou Mboup yow yaay coordonnateur mouvement Kaar Natangué léegi mouvement Kaar Natangué da nga bokk ci biir APR nekk membre APR créer mouvement bi wala da nga créer sa mouvement ànd ak président Macky Sall. non man man cadre de l' alliance pour la république la bokkoon ci ci cadre yi euh, alliance bi mais ba ma xoolee naka laay dimbale président. bokkutoo ci cadre yi. Euh, ma moontuma ci bokk pourquoi parce que du ma créer mouvement politiquement. mais yaa ngi APR. maa ngi APR. Mm-hmm. parce que euh, bi ma créer mouvement mouvement bokkul ci texte APR xam na mën nañ wax mouvement yi rek mais boo demee ci texte APR doo ci gis kaar naa tànge. Mm-hmm. moo tax politiquement. ak juridiquement sama mouvement laa yor di dimbale dimbale président Macky Sall mais damay ci APR laa nekk euh, laa nekk ba léegi. maa ngi ci ginnaaw président da nga transhumé ñëw wu ma parce que. en en deux maa ngi LD en 2009 maa doon directeur de campagne Benno Siggil Sénégal ba may ñëw APR APR jotagul nguur gi. donc étant jeune euh, beaucoup de réalité moo ci am ma ma ñëw jaar ci ministre de Tambay Ndiaye topp président Macky Sall mooy ba muy ba muy ba mu génnee ma xam ne tendance bi. ak ni muy waxee ak xel mu set mi ma ko gis ci moom ak yaakaar gi ak monage ma ànd ak moom def sama carrière politique parce que yaa am na borom xelkat xelaakat yu mag yu wax ne euh, xale bu nekk ci parti di jàng euh, ëllëg da nga gis. li nga gis ci Sall da nga ko gisutoon ci cadre yi jiite LD. Euh, noo du loolu parce que demoon nañ ba ba gis ne parti bi ci kanam mën na am ay jafe-jafe. Euh, ci LD waaw parce que ni ko président euh, euh, le ministre Abdoulaye Bati le secrétaire général jiite woon ji gisoon aussi yenn perspective wujjee yu amoon ci diggante moom ak le ministre Mamadou Ndoye man ci na ma nekkoon ci biir xam naa ne ci kanam tuuti dina am ay remous yu ci am loolu nag rëmu yooyu da warta am te méngoowul ak sa carrière politique nga ma jugé nécessaire waxtaan ak sama mentor de l'époque à l'époque ne ko man daal dama bëgg changer dem euh, feneen euh, xool benn parti mu ne ma xaaral ba ca kanam c'était en 2009 affaire bi leerul mais boobu fekk na man dem naa gis manit manit ministre Mbaye Ndiaye ne ko dama bëgg dugg APR ànd ak Macky Sall te yow yaa ma doy ci bunt parce que dama bëgg pratiquer mon expérience politique bi ma am au profit du Sénégal ba ma ñëwee ñu def campagne euh, présidentielle avec ñoom docteur Anta Sat Dieko fële ca Liberté ñoom Aliou Mara bokk ci comité Euh, benn bokk yaakaar ba comité électoral bi ñu koy ba bokk nga ci ñi fal Macky Sall 2012. bokk naa ci dox naa dugg naa ci kër yi euh, défendre nañ ko euh, wax nañ argumenté nañ à l'époque <laughs> léeg-léeg ñu utiliser ay argumentaires yu am solo ca monument beeg président Wade ak wax dëgg yàlla ñu koy nuyu di ko sargal président Wade mais en tout cas c'était la politique bokk naa ñu doon nekk ci place de l'Obélisque n'est-ce pas bokk naa ci loolu. ba nga xamante ne euh, ci ndaw bokk ci. ba président Macky Sall toog ci nguur gi. am ndam d'accord léegi euh, Abdou Mboup euh, yow ingénieur nga comme ni nga ko waxee ni sànq économiste ñu gis na président Macky Sall conseil technique la la def est-ce que président Macky Sall am na reconnaissance ci liggéey bi nga ko liggéeyal est-ce que tamit maa ngi lay déglu ci sa xalaat sa xam-xam. waaw xam nga man yàlla dafa su dafa ma euh, sutural ma jaar ci ministère du tourisme agence nationale promotion touristique ANPT nekk léegi agence sénégalaise promotion touristique avant ça jaar naa administration territoriale mais sama carrière lu ci gën a màcc ci xam-xam ci tourisme la ba ma ñëwee na naam politique moom ma dugal président de la république mais ba ma ñëwee def ab diir di def ay notes techniques dans le domaine du tourisme di wax président kat réew mi li mu am ci potentialité ci ci yàlla dafa def Sénégal richesse Sénégal manqué wuñ dara ci wàllu tourisme boo demee Mali du amuñ géej nga dem Burkina amuñ géej mais ñun dañoo am 700 kilomètres de côte ci écotourisme maanaam gàncax gi yàlla dañu ci may boo demee île du Saloum boo demee Casamance boo demee euh, fële ca Ndar Gëmbal boo jëlee ci wàllum tourisme de nature tourisme culturel la culture sénégalaise est vivace may def ay notes techniques yu am solo président découvrir sama potentiel dans ci côté boobu avant cela xam na ne kii conseil technique rek laa ko mën def parce que techniquement li ma indil ci bagage ci ci ci politique de développement euh, nekk na lu am solo. mais la yóbbu si ministère du tourisme. waaw non moom fu ma soxlaa fu mu toll nii mooy conseil technique. est-ce que ma ma may déglu parce que euh, après euh, boobu dox na ma. ma dem représenté ko organisation mondiale du tourisme ba nga xamante ne ñu xeex ak le ministre Alioune Sarr ba Sénégal nekkutoon ci conseil exécutif yi mondial euh, organisation mondiale du tourisme maanaam kàngam yooyu six euh, pays Afrique ñooy nekk ci ci conseil exécutif yi euh, organisation mondiale du tourisme Sénégal ay at ci ginnaaw ne bokk ci xeex nañ ren ba mu dugg ci juróom-benn pays yu war a siéger ci àdduna bi di xalaat fu tourisme àdduna bi di jëm mu yónni na ma aussi ma dem Paris ci le salon mondial du tourisme bëri na ay ay ay mesures dans le domaine du tourisme dama ko koy defal note jox ko ko mu may déglu wax dëgg yàlla ma ko ci gërëm bu baax a baax a baax parce que mën naa ko bañ a jox note ak ay indication mu mu bañ ki mais aussi dafa am yeneen yuy yuy yuy yu ñu ci yu may koy euh, jox euh, paax xelal parce que président Macky sal ingénieur bu toll noonu euh, léeg-léeg bu ma naan conseil man dafay xaw a rëy ci man parce que ni ma ko nawee euh, waxuma matuma ko mais danañ jéem mu ngi mel rek jaam bu bëgg nekk jaamu yàlla bu baax mais ngelaw ma ko foofu mais dama bëgg expliquer moom euh, euh, fi mu toll. ci wàllum ay nit ay multinationales yu war a dugg Sénégal ñoo xamante dañuy ñëw yor seen alal bëgg. investir ci Sénégal ma taxawal leen tatagal leen organiser leen wan leen ne Sénégal kat maximiser. Euh, euh, yoon yi nga xamante ne la ñu war a def euh, la ñu war a jaar ci wàllu njàngale mi ci wàllu santé ci wàllum paj mi ci wàllum agriculture est ce pas parce que damay animer aussi ay conférence à l'international bu ma dajee ñoom foofu indi leen def. no no lan ngay def conférence yi. conférence yi participer na conférence Italie Africa Business Week novembre bi passé ma thème bi ma animé foofu moo doon. tourisme ak sécurité dans la zone Sahel xam nga zone Sahel euh, Afrique dafa am perturbation ci affaire terrorisme yi ak lay xew ci Mali lay xew ci Burkina Faso lan mooy modèle Sénégal Sénégal nan la def euh, ci modèle ba mucc ci yo loolu ba mucc mucc ci loolu maanaam naka la Sénégal mën a inspiré àdduna bi. waaw maanaam danga bëgg a wax ne euh, tourisme mënut a avancé mënut a dox sans sécurité. Euh, xam nga mënut dox sans sécurité ñoom ñaar te Sénégal ci position géographique am Sénégal ci démocratie am Sénégal ci peuple yi euh, askan bi ethnie nu ñu dëkkee mhm. demlante lante mhm. mënoo xam kuy diine ku nekk ci diine lislaam ak ku nekk ci diine chrétienne Sénégal ci euh, nu ñuy passante nguur gi Sénégal aussi nu mu amee ci potentialité ci wàllum nature bi wax naa ko sànq loolu naka la mën a inspiré Mali naka la mën a inspiré Burkina Faso naka la mën a inspiré Côte d'Ivoire ba nga xamante ne zone Sahel nekk model moom tubaab bi aussi ne li ngeen di dégg Sénégal nekk na modèle mu nekkoon lu am solo. d'accord ba ma paree bëri nañ ñoo xamante ne ci Italie dañoo ñëw ci man. ci wàllum agriculture dañoo bëgg ñëw dimbal leen ci wàllum mbay mi mécanisation de l' agriculture ñii ne dañoo dañoo am mille milliards xam nga ku taxaw ne mille milliards dama ko bëgg dugal Sénégal Sénégal ni mu mel ak nu ñu defee modèle de développement ci wàllum ab plan Sénégal émergent nu mu inspiré le monde avec les ressources humaines de qualité. ñu koy fi fi nekk macha allah. d' accord euh, Abdou Mboup euh, yow sànq euh, wax nga ko ci maanaam Sénégal li mu am ci loo xamante ni tey ay ressources Sénégal bu ci sukkandikoo maanaam man na mën na développé mën na dem fu sore sore mais dañu gis ne. Euh, keroog président Macky Sall bi mu demee France ci ndaje mi nga xamante ni entreprise euh, française yi ñoom ñoo ko doon amal dafa wax patron yooyu patron euh, yi nga xamante ni ñoo fa jiita ay entreprise na leen il faut ngeen am beneen regard ci Afrique maanaam beneen bët bu yees xamal leen tamit na leen Afrique ba ngeen doon dégg ak Afrique bi nekkatul benn mais ñun lañ gis Sénégal yu baree bari remarqué ko économistes yu baree bari remarqué ko ak xeltukat yu bari mooy réewu yi investisseurs yi moo xam France la moo ko man di doon ñoom ñoo soxla Sénégal dañu am intérêt Sénégal te Sénégal toll na foo xamante ni tey réew yi ko soxla dafa bare léegi ban taxawaay la suñu nguur yi euh, war a taxaw ci réew yi nga xamante ni ñooy ñëw Sénégal pour investir fii. Euh, discours président Macky Sall boobu euh, jàpp naa ne nekk na discours historique parce que président de la République daanaka président cour magistral ci yeddaange la doon def parce que président Macky Sall ci xam-xam ki ci yar bi euh, Abdou Khadre ma soo dégg président Macky Sall ku mën a dendal ci ñun demal nga saagal ma demal nga tontul ma wala mu tont tontu bu ñagas yaram googu keroog dafa feeñ ci discours bi mu ngi wax ak tubaab yi ne leen bi wane na wane na seeni tële ban ko salu mbubu nag mooy lan masque euh, yooyu nga xamante ni doomi aadama war soxla ko war nañ xalaataat développement Sénégal adduna moo ko soxla. est-ce que Sénégal est-ce que Sénégal xam na ko bu baax a baax a baax Sénégal xam na ko boo xoolee discours président nam doon waxee ak ñoom nuñ ko doon dégloo nga xam ne xam na ko nee na leen toutes les transformations positives euh, euh, restent dans l'angle mort de l'actualité lu tax xam nga Afrique la jógee maanaam ba muy wax Afrique la waxal ba mu yàgg ne le Sénégal mon pays wax partenaires yi ne bu fekkee ne tey da ngeen toog takk seeni verre yoo xamante ne day tax ngeen pa nga baal ma ci kàddu gi du ngeen gis fii euh, Afrique di ni muy changé Sénégal ni muy changé ngeen fàtt seeni bët da ngeen tardé ëllëg parce que ci Afrique da ngeen tardé ëllëg ci Sénégal Euh, def ko daf ko daf ko solol mbubb wax ci euh, erreur yi ñuy def ci àdduna bi il faut que ni ñu tuddee développement gën ko orienté ci neneen ba boo fàttale ko ci at yi wees euh, bëri na ñu daan wax ceebu waalo di ci tooñ Macky Sall président Macky Sall boo fàttale ko at yi wees da nga dégg président mu naan couverture maladie universelle jël ci ay millions de sénégalais presque sept million de sénégalais ci les seize millions ñu jëriñu ci couverture maladie universelle boo fàttali ko at yi wees da nga daan gis mécanisation de l' agriculture mu jël ay machines yu bëri yóbbu ko ca waalo yóbbu ko ci kii pour lan développement bi ñu mën a am suñu wala suñ souveraineté économique suñ autosuffisance alimentaire boobu lii ñëwagul euh, pandémie bi ñëwagul donc dynamique boobu daf ci fekk président ci dynamique mu ne la nag ñun nu ñuy defee ci suñu réew Euh, li ngeen koy médiatiser ak ni ngeen ko foogee demeewul noonu te nag tubaab bi ñu ngi comprendre ñu ngi xam ne l'avenir Afrique la ñu ngi xam ne avenir pays bu mel ni Sénégal yàlla daf ñu suturaal daf ñu suturaal euh, depuis indépendance à nos jours yàlla may nañu presse bu mag a mag a mag presse une presse majeure dama commencé ci yow parce que yow laa jàkkaarloo yàlla may nañu ay kàngam ci Léopold Sédar Senghor président Léopold Sédar Senghor président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade koo ci jël rek ba président Macky Sall mën nga bind livre ci moom boo xamante ne jàngal la à l'international beaucoup de démocratie internationale yu mag yu foogoon ne ñoo mag léeg-léeg dañuy jël exemple wala nga gis président Amérique di tagg Sénégal ci màggaayam ci wàllum démocratie li mbir nag da nga nekk ci biir bato bi di nga nekk ci kër gi kër gi taaru lool ñi ci biti gis ne sa kër a gën a taaru Sénégal référence la référence la ci wàllum religion. d'accord comme euh, comme comme euh, mag ñu baax ñi lu ñu wax. d'accord ñee mën nañu gën gën magub démb ñu gën leen magub tey. d'accord nu ñu gën nu leen gënee magub tey. noonu lañ ngeen gënee ay cadre tey. d'accord des ressources de qualité institution internationale boo dem. Mhm. di nga fa fekk doomu Sénégal kàngam boo xamante ne bu waxee ñu déglu ko. ci ci discipline yépp nag. waaw mais euh, Abdou Mboup euh, yow la ñu invité tey ci rajo Réew mi FM pencum réew mi xam nga tey discours président Macky Sall bi fàttali euh, tubaab yi fàttali France ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ko doon dégg ne leen Afrique am na beneen taxawaay ak beneen doxalin boo xamante ni tey Afrique dina ko doxee na leen tamit na leen seen njariñ nekk na nekk na Afrique mais monsieur Mboup bëri na analyse yoo xamante ni ni ñu déggee kàddu yi président Macky Sall yi ak li ñu gis ci Afrique mooy ñun suñu chef d'état yi fulla ak fayda bi nga xamante ni tey moom la ñu war a wane ñenn ñi dañ ne euh, dafay faral di des beneen bi tamit collaboration bi nga xamante ni tey euh, Sénégal wala yeneen réew yi mën nañu ko def ak réewu tubaab yi dafay tax ñuy signé ay euh, partenariat yoo xam ne mën naa sax bañ a nekk avantage ci réew mi ndax tey par exemple bu dee France la am na contrat yoo xamante ni gis nañ ne yeneen réew mënoon naa gën a moins cher mais li tax ñu koy jox réew moomu peut-être tey réew moomu jàppale na président bi bi muy def campagne wala nangam ak nangam ñenn ñi daal dañu jàpp ne léeg-léeg président yi danañ signé ay partenariat yoo xamante ni mënoon nañ faa bàyyi réew moomu dem si yeneen réew yi. dina profité si sa question bi euh, ñaax mais aussi def analyse xam nga souveraineté économique maanaam réew moo xamante ne ay doomam dañuy nekk ci kanam ci économie bi. réew moo xamante ne gouvernement bi buy bëgg signé ci benn projet économique bu majeur construction de route construction d'hôpital euh, wala mu def ay installation ci wàllum technologie day xool ci doomam doomam yi ndax am na ku am kattan bi il faut que nos opérateurs économiques il faut que doomu Sénégal yi gën a jàngat gën a jàngat am nañu ci jàngat baax a baax euh, fu Sénégal toll ak fa mu jëm ëllëg président ci discours am wax na ne il ne peut y avoir ni d'exclusivité ni d'exclusion mooy lan mënuñu jël projet ne exclusivement France lañ koy jox mais mënuñu leen dàq aussi loolu mooy lan marché Sénégal fa mu jëm ci exploitation pétrole yi euh, tey entreprise Sénégal war nañ gën a avancer ci technologie ku ci nekk pàcc ba nga nekk Euh, jël matuwaay milliardaire Sénégal yi nga xamante dañuy toog jël alal yi denc ko milliard wax milliardaire Sénégal da xam dañ jël ko def ko feneen ni ko jël dugal ko ci ay ay ay ay ay créneaux porteurs yoo xamante ne su ma jëlee exemple le tourisme euh, sec tourisme les grands hôtels yu fi nekk nekk na suñu problème ay tubaab ngay gis ñu yor ko waxuma ne tubaab yi waruñu ko yoon yu ci bari hmm? euh, avion yi léeg-léeg euh, touriste benn touriste français day jël avion France ñëw dëkk ci benn hôtelu français mais foofu tourisme locale maanaam dem ci visiter artisanat yi rek lay la ci Sénégal jëriñoo que doomu Sénégal yi ñëw tabax des chaînes d'hôtels de dimension internationale cinq étoiles xool ay parc aquatique def ko ci comme Akon nu mu def euh, ni mu def bëgg def ca Mbodiène Pointe Sarène loolu nekk na lu salutaire yoo xamante ne doomu réew mi te réew mi pour que ñu am souveraineté économique lu ma la woon wax ne président amut complex président Macky Sall bokkul mais li ñu gis tey euh, li ñu gis tey euh, monsieur Abdou Mbow. waaw non li ñu gis président Macky Sall amul complexe. waaw Macron pourquoi. yow boo xoolee xoolal président dans son discours da ngay xam ne euh, c'est un grand cadre pratiquement li muy wax liiru ko. mais loolu du mbir mi mbir mi mooy dama bëgg wax ne am mënta am complexe Macron bu doon am complexe du mën a jàkkaarloog tubaab bi ne leen su ngeen gumbaa bu ngeen seen bët lëndëmee ñu dem baleen fi ni ngeen gisee du noonu daanaka boo xoolee discours bi yépp day jël exemple ci Sénégal ak Afrique di def enseignement di leen wax ak ñoom ci seen erreur ne leen yéen waxoon ngeen ne nit ñu baree bare ay millions millions yu doomi aadama danañ dee Afrique waxoon ngeen ko waaye ñun suñu expérience ci pandémie mais ñun suñu disposition yuy jël mais ay deux cent trois cent décès ok bëri na lool benn benn ku génn àdduna rek bëri na waaye par rapport ak Amérique par rapport ak France par rapport ak Espagne par rapport ak Italie par rapport ak Russie ñi nga foogoon ne waxoon ne ñoom ñoo jiite àdduna loolu tax président Macky Sall di leen wax ne nouvel ordre mondial xalaataat leen ko. lan mooy développement pourtant ñu bari dañuy wax ne président Macky Sall dafa complexé ci kanamu euh, Emmanuel Macron. loolu amul président Macky Sall cet ingénieur mënta complexe devant Macron au contraire xool leen seen pratique mais kii maîtrise mieux mieux mieux son pays. Euh, xam nga nag développement économique maanaam ci wàllum koppar ci wàllum jumtukaay ci wàllum armement ci wàllum yooyu la noonu xam nga. Euh, war nañ xalaatat bu baax a baax définition lan mooy développement ma Sénégal du ma nangu tey fii ngëm-ngëm toll ci fois toll man def naa def naa France def naa Espagne def naa États-Unis gis naa tubaab bi mais man Sénégal def ma gën a lool lool waxuma ne euh, foofu gën a lu ma mais mënta am complexe devant Macron ba Sénégal ba France gënal ko Sénégal. mais Abdou Mboup euh, li nga xamante ni moom lañ nemmeeku ñu baree bari di ko wax mooy président Macky Sall euh, tubaab yi la fi nekkal français yi la fi nekkal beneen bi tamit entreprise étrangère yi lépp lu baax ci réew mi euh, jox nañ leen ko. soo gisee tey sunu secteur privé bi nii nga xamante ni tey ni la néewee doole ci participation yi nga xamante ni tey doon nañ ko def ci mbas mi rek si suñu secteur privé bi soo ko méngalee ak sect secteur privé bi nga xamante ni moo nekk Maroc tey wane na ko mais boo demoon Maroc tey njiitu réew ma na muy jàppalee seen secteur privé nga dem France noonu mais ci Sénégal li ñu nemmee ko mooy sunu secteur privé bi naam ñoo ngi góor góorgóorlu mais taxawaay bi si njiitu réew waroon am ñenn ñi nee nañ des na maanaam daal président Macky Sall entreprise française yi wala étrangères yi ñoom la fi nekk lan ngay euh, tontu ci loolu. adduna dafa toll foo xamante ne benn réew mëntul tëju ne kenn du ñëw sama réew bañ tëjee aéroport bi ay weer nu réew mi meloon. tey mënoo wax ne euh, France benn entreprise française du ñëw Sénégal mooy li ma la wax tànk ci njàngat il faut que doomu Sénégal yi ku nekk fi nga nekk ci sa domaine économie culturel nga gën a rendre performant ci wàllum jumtukaay ci wàllum xam-xam ci wàllum matuwaayum xaalis ba bu ñu waxee ne ñu ngi def autoroute bu jëm ba Fuuta jàpp dem ba Bakel tourné noonu dem ba Kolda mën a dem ba Ziguinchor nga mën a ñëw am matuwaay yu ko mën joxe man leer na ma ne dir na ma ne lu président def bërki dem ba ci port autonom bi ci euh, ba jox ko secteur privé ci wàllum ex euh, kiiwu pétrole bi noonu boo ñu teg entreprise étrangère ñëw euh, priorité nationale bi dafay taxaw ni ma xamee président Macky Sall ci bëggum Sénégal sec xoolal Euh, bourse familial ba koy président di def ci ci ci ci ci les les les ci ci famille yu bëri yi trois cent mille famille ci biir réew mi le est-ce que mbas mi ñëwoon na xoolal ban réew moo dimbalee askanam ni mu leen dimbalee ci wàllum dund mais ñaari ñaari ñaari saako ceeb bu ko xeeb ca Saalum. waaw d'accord bàyyi bàyyi ma expliquer la. Uh-huh. pour expliquer fibre nationalu président Macky Sall man jege naa ko xam naa ko bu baax a baax a baax baax amul complexe. mais entreprise étrangère yi muy dooleel. non dooleelu leen bu par exemple bu amee benn ñu ne dañuy xool pétrole ca fële ca géej ga nekk ca Sangomar mais amul entreprise nationale bu mën a investir à coup de milliards boo xamante mën na perte xool pétrole rek bu boo amul entreprise boobu amoo entreprise bu mën a def ay milliers de kilomètres ci suufu ndox mi euh, géej gi. génne pétrole bi te foog ñu génne pétrole bi naka ngay def kii am na ko mën na jël moyen def ko ci Sénégal nga signé ak moom loo xamante ne Sénégal di si gis boppam Sénégal di ci kii ba pare entreprise nationale yi attan yeneen services yi autour de l' exploitation des ressources pétrolières ñoom ñu ñoom ñu ñoom ñu jël loolu looloo tax ba ne ca njëma njëlbeen kàddu sama njëlbeen kàddu il faut que ñu évoluer évoluer ak suñu réew évoluer ak suñu réew nu muy évoluer maanaam gis nañ pétrole gisuñ ko woon en 1980 mais léegi gis nañ ko gisuñ ko woon en 1990 2000 gisuñ ko woon gis nañ ko léegi naka la ñuy former suñu xale yi ba ëllëg duñ ne étranger yi ñoo ñëw jël mbir mi naka nga defee yow entreprise milliardaire nga am nga kii naka ngay crée jël ay ressources humaines de qualité bëri na Sénégal lool utiliser leen ba nga xam ne ëllëg buñ ne dañuy euh, def euh, euh, benn autoroute mu jéggi euh, géeju Kaolack bi wala mu jéggi euh, géeju kii Gambie bi wala tout ça dem Kolda yow nga mën a présenter offre boo xamante ne mën nañ la ko jox donc Sénégal daf di dox doxin boo xamante ne comme ni ko président waxee euh, tubaab yi c'est valable pour nous ñun ñu ko dëkkee suñu réew waxuma la dox sax mais man bu ko jàppee naaw laay wax ci wàllum fa jëm laa bëgg wax fa mu jëm ci besoin ci de construction réew mu réew mu tabax boppam ba presque ñu ne sori na bokkul ak réew moo xam ne dafa nekk à phase de construction. d'accord de vivement que les Sénégalais puissent comprendre que la presse puisse accompagner ce talent de construction nationale que les opérateurs économiques accompagner ko que tout ce qui ñor xaalis banques yi que Sénégalais yi investir yor banques yi nationale maa ngi gis par exemple lu mel ni EDK Oil defuma publicité mais boo demee ba jub dëkk ci EDK euh, xam ne kii kat doomu Sénégal mais da ngay kontaan da ngay bëgg nga xam ne kii kat mu ngi commencé pour certaines multinationales te mu ngi dégager en perspective ci pétrole bu ñu war a exploiter ëllëg. d'accord jërëjëf euh, monsieur euh, Abdou Mboup euh, nga nekk ingénieur en développement territorial conseil technique président Macky Sall nga nekk coordonnateur national mouvement Kar Natangué yow la ñu invité tey si sunu émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16 léegi. monsieur Mboup gis nañ li nga xamante ni mooy coronavirus Covid 19 bi ak jafe-jafe yi nga xamante ni andil na ko réew yu bari ci lu jëm ci mbirum koom ba Sénégal gi sax président Macky Sall am na ci benn programme boo xamante ni jëm na ci relancer li nga xamante ni mooy sunu euh, économie réew mi yow nga nekk euh, économiste sa xam jëm ci loolu ban taxawaay nga jàpp ne moom la Sénégal war a am ngir jubbantikuwaat ci lu jëm ci mbirum koom. waaw xam nga pandémie bi feebar bi daf di feebar boo xamante ne yéem na àdduna. loo xamante ne fooguñu woon fii xam-xamu paj toll ci àdduna fooguñu woon ne fii euh, nit toll ci wàllum technologie lii danañ mën a bett waaye xam nañ ne yàlla rek mooy yàlla mbir ñëw na loo xamante ne bett na ñëpp dem ci ay euh, am na fenn président sax bu doon wax ne mbirum sëqat la waaye sëqat buy yóbbaate moom soj buy yóbbaate yàlla nañ ci yàlla musal mu ngi mel ni oto buy daw deux cent kilomètres à l'heure wala avion buy daw a vive allure ñu ne ko taxawal noonu la pandémie bi def économie mondiale noonu la pandémie bi def euh, feebar bi def économie Sénégal ba nga xamante ne perte naw yu bare bare bare bare bare liggéey yu yenn liggéey ndaw ci informel bi taxawal na ko ci loolu euh, président Macky Sall ci plan Sénégal émergent bu mu amoon mu nekk plan bu am solo boo xamante ne fi def ay réalisation aussitôt dafa de benn plan de résilience boo xamante bu permetre dimbale askan bi ci euh, feebar boobu euh, dimbale leen ba nga xamante ne lu euh, coono bi bari bari bari bari mu wàññeeku ba wala ibbi bët yi ñu orienté def de nouvelle orientation économique tey àdduna wane na na feebar bi wane na na réew bu ci nekk bu réew bu jëlul boppam réglé lu ñuy wax auto autosuffisance alimentaire am souveraineté économique maanaam dimbale ay artisan dimbale ay baykatam dimbale ba nga xamante ne bay dundee boobu ñu doon wax ca ceebu waalo ba tey la gën a amati valeur euh, am ay industrie pharmaceutique yuy permettre yi euh, ñuy fajoo ñu mën ko am suñu réew naam mënoo am cent pour cent li ngay fajoo ci biir réew mais kam nga mën ko jéggaani loolu ngay dégg président mu naan dimbale ci maanaam infrastructure sanitaire gën a orienté ci agriculture bi euh, gën a aussi surtout cette souveraineté économique maa ngi koy répété di ko répété waat souveraineté économique boobu du état rek il faut que ñu xam ko sëriñ si na daan suñu maam yi def sëriñ Salif Mbacke ci xel kom bay ci ay milliers hectares génn ci ay millions de tonnes loolu ku ci nekk tey war nga orienté wu vers ça waxuma ne defuñ ko ñu bëri ñu koy def mais quand bu ñu doon def benn war nañ def fukk chef de village yi les jeunes d'aujourd'hui boo seetloo ci wàllum mbay mi tey bëri na jeunes yoo xamante ne euh, seen maam wala seen waajur doon na bay mais jàng nañ as tuut wala toll nañ fenn yi commerce moo leen di gën a ambulant que bay donc main d'œuvre agricole bi état bi parfois dafay wan ginnaaw mbay mi dafa am secteur yu bari yoo xamante ni taxawaay bi si état bi waroon def. Euh, dafay manqué même Macky Sall reconnaître na erreur yooyu France xam nga sec mhm. non euh, erreur yam reconnaître loolu mooy li ma wax li mu doon orienté joxoñ tubaab yi seen erreur waxut erreur boobu euh, mbay mbay suuf si loo ko jox mu delloo la ko suñu maam yi nañ daan def ñun toll nañ tal Saalum buñ toogee ci noor soxlawuñ dem fenn ca ci réewu taax yi Saalum day neex lool yaa ngi dégg ci wàllum donc xale yi góor xale yi war nañ gën a orienté wu ci jamonoy mbay ñu dem bay di liggéey te bay mën ko ataa da leen gunge état gunge leen xam nga efoor d'abord il faut jox leen espoir si si espoir am na déjà parce que bu fekkee ne bay nga am nga foo ko jaaye am nga quiétude bay te doo dégg bal tàkk am na gox yoo xamante ne ndox bëri na fa lool waaye kenn mënta bay sécurité bi am na suuf si am na ndox mi am na su ma gisee xaar sec des millions de litres litres do ñu naan inondation te mënuñ ko canaliser teg ko fenn foo xamante ne euh, effort communautaire foofu laay waxee waxuma ne nag ne ay yaafu sëñ noono non kam ñu gën a orienté wu ci wàllu mbay mi ñu continuer ci euh, démarche euh, qui démarche réforme économique yu war a jur après Covid yàlla suturaal nañu gis nañ fi gaz pétrole fii ci Sénégal loolu ci exploitation ni ko président tëggee ci fonds boo xam ne pour les générations futures ci fonds boo xam ne dafay dem directement ci wàllum éducation ci wàllum santé former ay xale yoo xamante ne dañuy am xam-xam lool ci ci ci ci ci ci wàllum fu adduna jëm ci wàllu technologie am am une presse boo xamante ne une presse de développement parce que bu réew tollee ci wàllum euh, yokk construction mais organes yi ko téye yëpp ñoo war a euh, yëngu ci ci tabax boobu waxuma ne presse bi yaa dégg xool gën a former ay ay ay doomam ci wàllum naka la ñuy demee ba Sénégal jëm fañ bëgg dem mu dem fa ku nekk gis sa bopp donc président ma Sall. nekk na mais relance bi na yaakaar. Hmm? relance économie réew mi euh, am nga si yaakaar ne euh, tey ni mu nërmeeloo ci réew mi du yàgg dara mën naa nekk fi mu nekkoon. bu am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax lu tax ma am ci yaakaar parce que président mu ngi wax ne ci ci ci wàllum boo boo seetloo euh, installation de meilleures condition de relance de l'industrie locale naka la ñuy defee industrie locale bi soutenir les soutenir agriculture bi industrie locale artisanat à travers les cent vingt corps de métier leen appuyer leen artisan yu bëri jot nañ appui euh, entreprise yu bëri appuyer nañ leen ba déggoo ñi ñàkk seen liggéey ñu baree baree baree bare dem am souveraineté économique outil fiscal bi réfléchir ci euh, créer aussi ay organisation publique yoo xamante ne dañuy am de nouvelle priorités par exemple publique euh, et privée organisation paysanne yoo xamante ne dañuy gën a mën a am doole organisation yu des professionnels de l'automobile yoo xam ne dañu orienté wu ci euh, euh, gis naa benn doomu Sénégal boo xam ne mu ngi tabax mu ngi defar na oto boo xamante ne moom moo ko defar non professionnels automobiles des artisans qui sont là euh, am nañ xam-xam ak xarañ bu toll ni mhm. tey bu professionnalisation gënoon na taxaw danañ mën a produire loo xamante ne àdduna mhm. mooy daw ñëw seet si ko donc am naa ci yaakaar bu baax a baax président mu ngi wax ne plus de quatorze milliards jël nañ ko pour Euh, def ko ci kii muy quatorze milliards euh, quatorze mille milliards quatre euh, quatre vingt dix huit loo xamante ne neuf mille quatre cent quatorze milliards am nañ ko déjà am na leen loo xamante dañ ko uti ci partenaire financier yi partenaire financier bokk na ci partenaire ci réew mi secteur privé bu ci réew mi bokk ci ñëw imaginez mon cher secteur privé bi gisoon naa ku mel ni mbàkk yu fay mu ngi ut licence euh, pour télécommunication doomu réew mi am ay kii te télécommunication ay ay ay ay ay réseau euh, de téléphone yoo xamante ne ñoo koy moomal seen bopp pour alal bi mën a def c'est encourageant d'entendre cette initiative la donc ñu dugg ci ci mobilisation de ces quatorze mille milliards mais aussi bu mu niñ dem ñëpp ci réew mi il faut ñu jéggaane ko ci bitim réew ci ñi nga xamante dañoo bëgg ñëw investir ci Sénégal avec ce code d'investissement très attrayant ñu mën a ñëw dugg ci réew mi muy trent deux virgule trois trente trois virgule deux pour cent yoo xamante ne. d'accord quatre mille six cent quarante quatre vingt euh, quatre milliards yoo xam dañ koy uti ci ci bitim réew. d'accord ak ci biir réew mi. d'accord Abdou euh, li nga xamante ni mooy la ñëpp nemmeeku mooy sunu Sénégal gi secteur informel bi euh, moo fi ëpp mais tamit nemmeeku nañ ne yéen ñi nga xamante ni yéen a ànd ak président Macky Sall su ngeen di wax dafay mel ni nag. Euh, xam naa ne ay Sénégal yu bari yu wuute lañ par rapport ñun li nga xamante ni tey moom la ñu faral li gis sur terrain mooy sénégalais yu baree baree baree bari seen liggéey yàqu na mais sénégal yu baree baree bari sonn nañu bëri na ay sénégalais yoo xamante ni jàng nañ ba yor seeni lijaasa amuñu fenn foo xamante ni fa la ñu leen dugal maanaam jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi ñoo ngi koy dund euh, yow gisuloo loolu wala da ngeen si da ngeen si amul solution wala lan moo xew li ñu gis sur le terrain mooy jafe xam ne sénégalais yi ñenn si ñoom ñoo ngi koy dund. Euh, jafe-jafe yi boo demee Amérique tey Amérique waxuma ne lu normal la mais dama bëgg wax ne jafe-jafe yi da ne Sénégal secteur informel moo fi ëpp boo demee Amérique dañ naan trente million de chômeurs yoo xamante ne ñàkk nañ seen liggéey euh, fi àdduna toll ci pandémie bi nga xam ne teguñ ko suñ bopp euh, dafa ñëw ñu ciy sant yàlla bu baax di ko ñaan mu jëlee ko fi moo ñu teg teg loolu tegin nag bu amee dañuy xool nañ koy nañ koy nañ koy saafarale kenn ku nekk sa responsabilité nga mën ko assurer loolu laay wax ne euh, ñëpp sumbandoor état mu ngi def la mën a def ci wàllum créer euh, sécurité réew mi créer un environnement attractif créer ba nga xamante ne euh, fi nga bëgg liggéeyee boo xëy xëyee boo xëyee yor sa marchandise bëgg a jaay nga mën a dem jaay nga mën a dem jaay en tout sécurité nga bëgg am entreprise ñu ne la boo defee vingt quatre mille au lieu de un million capital cent mille francs nga mën am sa entreprise boo bëggee am sa NINEA registre de commerce mais tey boo boo ne yow yow boo ne sénégalais la nga ne réew mi métti na mais ñu ne la lan nga def pour génn te propre waxuma ne sénégalais yi defuñu effort boobu mais il faut que nga professionnaliser wu ci njàng mi ci formation am na fi ku fi bëgg formé wu di nga gis foo formé wu certainement moyens yi nag euh, mën na faire défaut mais ku fi bëgg am entreprise mën nga am entreprise mën nga euh, gën a professionnaliser liggéey ba nga def mbaar mii la su sa waajur bàyyee mbaarum uude bii la waaye yow professionnaliser nga ba mu nekk entreprise yoo xam de cordonnerie boo xam ne di nga mën defar dàll yoo xam ne di ko mën a jaay fii ba Maroc fii ba un peu partout dans le monde donc foofu élan national patriotique de de de révolution économique boobu laay la wax ci suuf ba ci kaw mais tey boo demee Thaïlande jooy yi ñuy jooy moom la ñuy jooy foofu muy lan secteur informel bi feebar bi daf ko jaxase lool feebar boo xamante ne yow miy jaay ci ngay jàkkaarloo daf lay daw mais loolu yéeme na loolu état munu ci dara état bu sañoon yow booy jaay nga mën a dem ci environnement bu bu bu sain environnement bu bu bu bu c'est-à-dire yi mhm. dama bañ rek ñu jël ko rek état la il faut ñu xam ne ñun kat bañ fii juddu di ñëw état yëgut n'est-ce suñu wërsëg état yoru ko état nag mooy organisation nationale bi impulsion nationale sécurité bi moo koy créer au niveau macro état mooy crée ba doomam bu bëggee jóg ñaq mën a dem ñaq mën a dem bay suba ba ngoon te du dégg bal te kenn du ñëw ne ko génnal tool bi d'accord donc yooyu yëpp mu ngi fi ci Sénégal outil yooyu mu ngi fi may gën a ñaax ñu gën a bàyyi aussi xel ci lenn parce que sa réew bu fekkee toll na ci niveau euh, supérieur ci réforme gëstuwoo ko day mel ni dëkkoo ci réew ma léeg ma dégg ci yenn presse bi léeg ma déglu dégg ci yenn nit ñi ñuy wax waxin boo xamante ne par exemple euh, euh, ñu mën a am dem hôpital avec la couverture maladie faju kaar naa tànge sama mouvement bi jël naa ay vieux yu bari utal leen plan sésame ñu dem faju ji parce que xamuñ ko mais ñun ñooy descendre wàcc ci le terrain. dem wan leen ne. mën ngeen am lii. li seen la ngeen dem faju euh, te loolu dafa bari ñu ko umpale ci réew mi. donc ibbi gën a ibbi euh, bari xam réew mi nga dund dund. xam aussi jafe-jafe yu ñuy tegu ci jógee ci biti. am jafe-jafe yu jóge ci feneen foo xamante ni ñu contrôlé wuñ ko. loolu yëpp nekk na matuwaay yu ñu war a jël. pour réew mi jëm ca kanam au bénéfice de tout le monde. d' accord euh, Abdou Mboup euh, ñu fàttali ne yow euh, conseiller technique président Macky sàll nga yow la ñu invité tey sun sunu émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM li nga xam ne moo xew Mali muy coup d' bi nga xamante ni militaires yi def nañ ko teg loxo ci nguur gi loolu lan moo ci sa xalaat. waaw coup d' moom kenn du ko rafetlu kenn mënu ko rafetlu loolu. démocratie bu ñu arrêté la euh, nekkutoon li gën ci marche démocratique wu réew te kenn yéenewu ko Mali ñu naan ñu ngi ci seen quatrième daanaka coup d'état waaye ñoom booy déggee ñuy wax ak Mali fa jëmoon ci wàllum euh, c'est le moindre mal comme on diir dire parce que boo gisoon sac aljuma ñu naan nangamu nit génn nañ àdduna loolu sa yaram da daan daw parce que Mali Euh, ak Sénégal da di benn ñaata famille ñoo fi nekk famille yoo xamante ñi Mali lañ dëkk mm-hmm. ñi ñi Sénégal dëkk ku nekk am nga fa mbokk kenn yéenewu leen loolu tolloon nañ foo xamante ne mbir mi ni ñu ko defee c'est te mal boo xamante ne man comme amul benn ku ci dee mm-hmm. léeg-léeg ci sa nit nit laa wax de waxuma en tant que démocrate mm-hmm. waxuma en tant que da nga naan c'est un mal bu ñëw boo xamante ne euh, ñoom mën nañ faxe ba génn ci ci anam yu baax a baax a baax comme comme le vin est tiré jàppoo ne li ñu def nii buñ ñu ko defutoon problème mën naa gën a am noo donc jàpp ma ne problème mën naa gën a am parce que IBK euh, euh, dégguma ko man mu def discours vingt ans dégguma ko gisuma ko fenn gëstu naa ko na ba sonn gisuma ko muy saaga wax wax ju ñaaw ci ci ci Mali d'ailleurs ba ko militaires yi ñëwee sax dafa mel dañ ko rus kenn mësta gis lu mel noonu ba ñëwee fekk këram di ko jël dafa mel ni dañu am kersa ci moom dañ ko escorter yóbbu ko ni ñu ko ni ko ni ko traité man li ma gis ci moom ci kanamam mag mu yaru la. d'accord léegi euh, gis nañ te réew ma tolloon na foo xamante ne. Uh-huh. Euh, soit moom day def déclaration ba mu mujjee def nii ne. démissionné na démissionné naa ñëw leen defaraat réew mi pour man militaire dañoo yàkkamti mais buñ bàyyi woon tuuti IBK mi ma gis. bëggoon na ci génn parce que feebar na dégg wax utal leen ma fu ma fajoo ci man bëggatuma benn seconde delluwaat ci nguur gi donc ngéej la la waa ji waxoon nam mu ci yebu ci ku ma ci ba max ma jël d'accord d'accord euh, CEDEAO gis nañ doon nañ fa dox tànk jàmm mujjuta sotti avant coup bi am ñenn ñi dañoo jàpp ne CEDEAO dafa lajji lan moo ci sa xalaat beneen question bi mooy li xew euh, Mali ñenn ñi jàpp nañ ne mën naa xew Sénégal ñaari question yooyu euh, monsieur Mboup benn question kenn CEDEAO lajjul CEDEAO ku ko jàppee ci démarche dem lijjanti mais CEDEAO tey mu ngi si sa poos sa carte d'identité boobu carte d'identité CEDEAO la CEDEAO lajjul. ci médiation bi da sa lajj. non lajjul xamu tax lajjul. Mhm. parce que jamono jam demee mango bu ñor lu ku koy mën a teree wadd mënut a nekk donc jamono jam demee fekk na mbir mi ñor na ba noppi parce que réew nag mënoo. Euh, in euh, souveraineté nationale nga ñëw di ko violer jamono ba mu demee dafa fekk. béy wéy mbuus. Euh, béy wéy na mbuus. d'accord vraiment dégg donc lajjul. Uh-huh. du du CEDEAO réew moom moo tolloon foofu. beneen bi aussi am na loo wax loo xamante ne am na am na li nga wax loo xamante ne mooy Sénégal boobu loolu man bu ma ko déggee daanaka jooy moo may dese. mais yaa ngi koy dégg. non parce que daf may métti xam nga tax mooy métti Sénégal mérité loolu. Uh-huh. mais yaa ngi Sénégal mérité wul ñu comparé ko ak loolu. mais ngi di ko wax. mu ngi yaa ngi ko wax ni léegi. Uh-huh. Euh, Sénégal mérité wul ñu koy comparé ak loolu. Sénégal lu Léopold Sédar Senghor. Sénégal lu responsabilité ak matuwaay armée bu armée bii nga xamante ne ci fonkel ci àdduna laa wax de waxuma Sénégal ci àdduna référence lañ armée bii nga xamante ne seen formation li ñu jéggi lépp ci démocratie. président Senghor jox ko président Abdou Diouf président Abdou Diouf jox ko président euh, Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade jox ko euh, président euh, Macky ñu def élection dimanche altine ñëpp dem liggéey Sénégal mérité wu loolu Sénégal gii nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba yal na yàlla yokk leeram dem nag tubaab bi ñëw ne baale naa Sénégal gii nga xamante ne Sidi Maodo Malick Sy taxaw ak tubaab bi tënk leen téye leen ñu teg seen. lii fii mu teg seen zawiya fii Sénégal gi nga xamante ne euh, ñoom ñoom ñoom euh, chrétien diine chrétien ak diine lislaam jaxasoo nekk benn Sénégal gi nga xam sur le plan culturel kàngam yi fi nekk Sénégal gi nga xamante ne parti opposition bi opposition bi jëlal 23 juin dem nañ ba assemblée nationale bañ demee ba nga xamante retenir loi bi opposition bi ñoo ne nañu ñibbi suñu kër bàyyi président Wade mu yeggali mandat kàngam yooyu ne Masbut Diop la ñu daj ci Sénégal ñoom professeur Abdoulaye Bathily lu ñu daj ci Sénégal ñoom Landing Savané lu ñu daj ci Sénégal Sénégal googu kenn war ko comparer ak yenn réew yi donc sama dënd jóg na ndax lu tax parce que waruñ ko comparer ak Mali ta am Sénégal Sénégal léegi euh, ça ça risque d'être une exception boo xamante ne inni kenn mënu ko xalaat. est-ce que bu président Macky Sall ne woon dafay euh, déposer candidature am ngir am ñetteelu mandat est-ce que jàppoo ne euh, révolution populaire mën naa am. réew mii réew xel la. réewu xel la man président Macky Sall euh, sama waa ji Seck luñ ko fi waxul amul dina def lii mu ñëw jëf jëfinu gor ba tàyyi président Macky Sall dama ko wóolu à cent pour cent waxuma quatre vingt dix pour cent de. dina yor Sénégal parce que yor wudul jeex amut say wudul tas amut yaa ngi dégg tas ci nii rek wala tas dem yoomi xeyaam am déet man maa la wax li ci émission bi président Macky Sall dina yor Sénégal ba ba pare gàcce ngalaama lañ koy wax ba institution internationale di ko wër parce que xamuñ ko ñu am cet ingénieur là. mais jàppoon def troisième mandat. non du question euh, jàpp ndax dana def troisième mandat def la dama wax nit ki laa wax nit ki président Macky Sall. mais li ñu laam-laamee. ma ne il faut que Sénégal xam kuy président Macky Sall Macky Sall du defantu nu mu ñëlee guur gi ba gars yi dem ci place de l'Obélisque taal lu mu wax man du ma yëkkati luy taal réew mi am na fi benn xale bu jógeyoon bitim réew lu mu du wax Sénégal ci saaga amul le président amul ba mu ñëw lu nañ ko bàyyi. donc ce qui fait que moom nitu jàmm la nit ko pondéré la nit ko am xam-xam la nit koo ko xamante ne ku ànd ak sagoom la ku nguur fëkkut d'accord fëkku ko bu ko nguur fëkkoon nga gis benn melokaan président Macky Sall moom mooy jaxase démocratie Sénégal da koy consolider ku weddi gisal li muy def ci dialogue bi ku weddi xoolal réforme majeure yi mu def ci Sénégal ni tegee Sénégal ci raay ku weddi xoolal suñ borom ni mu àndeek moom ci barke ci wàllum mu ñëw gox boo jël ci senegal ñu ne pétrole feeñ na fa ba jëm toog sax est-ce que fii ñu toog ci réew mi FM sax pétrole amul ci suuf d'accord euh, barke la boo xamante ne kenn euh, monsieur Abdou indi leneen lu jàmm ci biir réew parce que loolu la ñuy wan loolu la ñu nampatal ñun ñii parce que sama émission bi yaa ngi dégg déggoo ma xas fi kenn déggoo ma wax lu neew parce que noonu nañu nampatalee kooku kooku dina yor réew mi ba dem ay ay ay waxu troisième mandat ay waxu leneen yépp hmm. man ñu wax ci nit d' accord mais mais euh, monsieur monsieur Abdou Mboup yow nga ànd ak président Macky Sall noo gisee ay jegeñaale Macky Sall ndax dafa bëri ay ministres yoo xam ne dañu leen di tuumaal ne dañoo am ay ambition ay ministres yu bëri ñu leen di tuumaal ne leen dañuy complot président Macky Sall coow li bari ci ñi nga xamante ni ñoo wër Macky Sall da ngay gis ay farandooy benn ministre di attaqué euh, beneen ministre coow loolu noonu yow lan moo ci sa analise waaw ah, man de <laughs> wax dëgg yàlla nga baal ma mais côté boobu damay xaw a màndu tuuti man daal euh, xam nga mbir mi noonu. man ku may intéressé mooy Macky Sall man aw ma aw ma noon aw ma noonu utuma ko sàkkuma ko. ànd ak benn ministre. mooy li ma wax nii waxu du ñàkk ànd. Euh, nekk nekk nekk ànd nekk ci diine yonent yàlla Muhammad taxut nga bañ yeneen diine yi man man président Macky Sall moo ma intéressé ci mbir mi moom ni mu wax ñuy comporté woo képp ku def leneen saa n'engage que vous képp kuy saaga saa n'engage que vous mais du Macky man. naka lay inspiré woo ci démarche am mais du ma nekk di analyser euh, keneen parce que sinon damay tooñ quoi nga baal ma nga dem nga baal ma ci màndute boobu ma def ko mooy sama ligne de conduite buñ ma xamee du ma mën a wax keneen ci li ñu def mais l'essentiel li may ñaan mooy nit ki boo ne meewu kakatar kakatar meewu kakatar lay gàll boo ne diw mooy sama kilifa da ngay xool diw moom lu muy comporté woo président Macky Sall du saaga kenn mosu ko dégg du wax wax ju ñaaw boole na ñëpp ñuy benn bañ daan wax ne tarixa yi xaw nañ am différence tey président Macky Sall bu demee Medina Gounass nga ne Tidiane foofu la fa foofu la bokk mu dem Tivaouane nga ne foofu bokk nga mu dem Medina Baye nga ne foofu la bokk nga dem Touba nga ne foofu la bokk boole na diine yi boole na diine yi boole na tarixa yi boole na diine gi boole na askan bi. d'accord jërëjëf euh, monsieur Abdou Mboup euh, waxtu wi euh, jeex na sa mouvement bi di Kaar Natangué ci une minute wala deux minutes lan la mouvement bi def ci force Covid bi moo xam ci sensibilisation la moo xam ci ay dons yoo xamante ni maye na ko. waaw mouvement bi mu ngi liggéey liggéey mucc ayib ci biir réew mi mais ci biir ci ci ci capitale bi également. xam nga euh, dafa am ay mesures barrières yoo xamante ne dañ koy laaj nit ñi ñu def ko léeg-léeg mu am ci ñoo xamante ne ñii gëmuñ ko ñi ñii ñu ngi naan am naam amul def nañ ay distribution de masque parce que ñun dañuy liggéey ak artisan yu bari dem nañ ci marché fii ci Parcelles Assainies euh, distribuer marché masque jo euh, ay ay ay milliers de masques mais quand même mënuñ daj ñëpp mais quand une façon de montrer aux gens que ah feebar bi de suñ borom moo ko indi ñun nag war nañ jël matuwaay yoo xamante ne pour mucc ci matuwaay yooyu moo ñu muccal mais ñu mucc ci sensibilisation def nañ ay wax dëgg yàlla ay jàppale ay ci ci biir réew mi ba nga xamante ne sensibiliser euh, à travers l'internet mais à travers des actions pratiques ci sur le terrain dimbale aussi di oo nit ñi ci ci ci ci biir parce que am na ndimbal moo xamante ne kenn di ko wax ca kaw. d'accord <laughs> jërëjëf kenn du ko wax ca kaw euh, da ngay mën a dimbale nit ki ci suuf. Uh-huh. Ah, ne ko jàppal naa la. parce que ah. dafa am perturbation économique bu rëy mu def. Uh-huh. Eh, comme li ma doon wax tabaski bi ne corona tabaski la. Uh-huh. alors da jàppale nit ñi ci suuf te duñ ko yëg. am jàppal defal lii. mais loolu suñu diggante la ñu nu neen en tant que jullit parce que boo ma nga nekk homme politique mais na la leer na sa jëf bii kat ëllëg. suñ borom da koy ah, quantifier ah, d'accord jërëjëf euh, Abdou Mboup euh, waxtu wi neex waxtu wi jeex na émission bi euh, neex na macha allah lan ngay tàggoo xanaa sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad di wane ne ay jullit dëgg lañ yu gëm yàlla yuy politique di ci ut ngërëmal suñ borom di ci ut ngërëmal nit ñi di wax nit ñi ne ñu gën a xool gën a jàngat kuy président Macky Sall ci bëgg réew mi man dama ko xam bu baax a baax jege ko li may wax ni man leer na ma duma ma ci am bàkkaar ñiy wax ne France président dafa kii na ku bëgg réew mi ku bëgg réew mi dëgg euh, boo doon ci ci réew mi président Macky Sall lay doon lay doon jëlul alal réew mi pasa pasare ko déedéet ñun ñii nekk ci wetam xam nañ ko waaw waaw donc vraiment maa ngi ñaan nit ñi ñu gën a xam seen président gën a xam seen réew ñun ñëpp ñu bokk ànd tabax réew mi ci presse bi ku nekk ku nekk fa nga nekk xamal ne réew mi sa réewa yàlla na yàlla def jàmm feebar bi suñ borom dindi ko ci réew mi ci nu mu gën a gaawee yàlla def jàmm ci diine bi def jàmm ci màggal gi di ñëw ba nga xamante ne ku ci dem mucc yàlla rek moo mën a muccal yàlla yàlla muccal ñëpp ak dajey diine yu ci am yëpp ak yeneen dajey yëpp mais ñu ñaan nit ñi ñu moytu aussi daje yi ni mu ko mën a parce que balaa njëriñ loo fekke balaa nga naam mu euh, fekkee ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf euh, Abdou Mboup yow nga nekk ingénieur en développement territorial nekk conseil technique euh, président Macky Sall coordonnateur national mouvement Karr Natangué yow la ñu invité woon tey ci samedi ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août atum 2020 ci rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw jàll ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak